salaamaaleykum waa Sénégal rawatina waa mbur tey nag dañoo ñëwoon fii ci sali ñax ñaxa seet si sama uh, yaay sama xarit sama mag sama lépp ñu koy wax Adja Ndeye Mbaw wax dëgg yàlla biñ ko uh, biñ ko yëgalee sunu émission bi ba tey moom wax dëgg yàlla moom dañoo yombalal lépp wax dëgg yàlla uh, soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay delloo nuyu ah, di ziar di màggal. di wax asalaamaaleykum di leen dalal jàmm yéen ñi ma cher si naan leen bisimilah. waaw euh, Adja Ndeye Mbow tey dañoo ñëwoon di waxtaanee euh, laabaan waaw laabaan laa ñëwoon ñu waxtaan ci ma bëggoon nga am yow ma ci wax ndax maanaam laabaan maanaam na mu amee woon bu njëkk ak léegi ni maanaam ni ma ko gisee léegi daal moo xaw a moom ma ma am ci lu ma ci jaaxal daal ma di la ci laaj. waaw waa ah, laaj nga ma ci loo xamante boo ma ci laajee dinaa la ci tontu ndax ah, ma mag loolu nag wante duma xale boobu ndax fekk naa lu bari nag boo gisee laabaan tey boo ma ci laajee ma sawar laaban dëgg la ndax ak façon nag am ndax bu njëkk danga daan joxe sa doom ndënd yi fajar yaa ji xolam guy mu sar xoole ndax foo dégg ay ndënd fajar rek danaan ah foofa xale moo fa ne kon loolu de ah xamagum naa ko ci laabaan ci li ngay laaj waaw waaw waaw loolu de dëgg la daraan am ci bu njëkk waaye léegi sunu jamonoy tey jii daa mel ni xale yu jigéen ñi dañ ko cee dañ dafa dañ koo néewal daal ndax léegi maanaam ku ñu maye pour nga dégg laabaan problème la waaw comme li ma la wax rek ku ñu maye nga dégg laabaan problème la ndax ñun bu doon waa nag temps bu njëkk ba ak léegi moo sansé waaw mu doon lu doy waar mu doon loo xamante ni lu. ndax boo xasee ba ne alxeri mhm. amatoo foofu dogal dañuy defaru ba jekk sab xarit taxaw fee lijjanti oto bu yàgg taxaw boo paree ñun la yomb ci oto bi dem sa yoon moo danga cee man dara. moo tax nag moom fa da ciy jor di topp. moo tax nag ah, lii am moo tax nag fi mu toll nii ah laabaan gaw ma ne dina di ni mu daan ni mu bëree woon bu njëkk gaw ma ne dina bëree noonu ah, léegi. soxna si gaw ma ne dina ko bëree. wax dëgg yàlla de gaw mu bëreeti ko daan li ma la wax rek il faut daal moom léegi xale yi daal silwisa silwisa lañ koy waxee moom la ñu jël nee nañu léegi looloo seen sutura te loolu la ñu bëgg. Ah, dañ leen ci daal di fekk rek waaw waaye tamit leen tamit dinaa am lu ma ci dina am loo xamante ni dinaa la ci laaj. mooy ba xam. Oh. ndaxte da ce am ñoo xamante ni sama genre gi euh, waajur yi nga xamante waajur yu jigéen yi nga xamante ni lu yomb lañ bëgg. ndax am na ci waajur yoo xam ne seen bu ñu yoree xale bu jigéen bu ñu yoree jànq bu xaw a dëgër. Mhm. ña ngay xool ci moom xaalis. wala ñuy wala ñu toog ba guddi. Mhm. di yaakaar ci moom sandis buñ ko indil. loolu est-ce que wundul loolu. ah waa mi ngi noon rek loolu nag moom du ñëpp rek li ma la wax ndax lu euh, nee naa la ñaari yoon. Mhm. fa ndox daantaa boo demee fekk fa tepp teppal ba ndax sa doom nga jur ko yar ko. Mhm. teg ko fa nga ko war a teg ak ki nga xam ne dafa jur doomam du ko wutiloo kooku dara méttiwu ko. dëgg la ndax ki dara méttiwul mooy ki nga xamante ni dangay tëdd ba guddi sa doom doxi ba heure bu ko neexee na la pëkk pëkk pëkk. jox leb sandis wala mu jox la laxasu dibe ah xalaatal foo ko jëlee man est xam nga lu ma bañ maye xale bu jigéen rek daal ne mooy waaja a ah, déedéet man de maa benn góor ne la may naa la nit ba pare ne la jànq laa la may a ah, ndax àdduna bi dafa wëlbatiku te àdduna bu wëlbatikoo dangeen di wëlbatiku ànd ak moom loolu kese la nag. Ah, dañuy wëlbatiku ànd moom moo taxit doy na waar doy na waa torop torop torop. lenn de laa ci xam xanaa ñu ñaaxaat xale yi rek wax dëgg yàlla ñu delluwaat ci démb fas yéene indiwaat laabaan wax dëgg yàlla laabaan moom doon na loo xamante ni nii moom lu neexoon la moom ci sa ci ñun moom ndax dëgg ndax laabaan làng laa ku ku ñu làngal laabaan sa ëttu kër baay moom wax dëgg yàlla dinga may sa ndey ndam dëgg la wante nag danaa la xamal ñaar ñàkk na noo langal nit laabaan tëggal ko di woo ay ndëndi fajar jëkkëram yóbbu ko ca hôtel ba mu may sa yaay ndam wala sa ni nga toog àndak sa doomi baay ne moota ànd ak si nga war a àndal dem saw yoon ñëw andi sër bu sër sër bu jànq loolu it am na de loolu nga daan dina may sa yaay ndam am na noo xamante ni dina la jox ndam am na ñoo xam ne dina la ñàkk a jox ndam ndax léegi kenn xamul yàlla rek nag moo xam ñépp a bëgg laabaan waaye nag laabaan dañu ko defoon yëfi puukare teg ci nag ndax dangay xool sa jëkkër jox la la mu la war a jox nga xëy def sa sa sa takk ba pare def loo war a def teg say sabar yéen nit ñi ñu jóg ku nekk xam ah, doy na waar aka ma cee àndoon wante nag léegi si nag fi mu ne nii ànd naa ci silwise gi de. ah, ah silwise na nag am na wet gum silwise waaye am na ci wet goo xam ne moom silwise wu ci ah. moom wax dëgg yàlla ndax fi mu toll nii moom France daal di xëddeen baan moom daanaka rek rarement nga koy dégg. dëgg la moom ni meloon bu njëkk moom melatu ko moom. man kay xanaa li ma bëggoon mooy ñu ñaax xale yu jigéen yi ñu yemaat ci seen pooj yaay yi bàyyi am na ci xale jigéen yoo xam yoo xam ne dañuy topp dañuy dem toppi góor gi dañuy toppi góor gi bu ko defee say waajur duñ xam jànq nga duñ xam ne doo jànq am na ci ñoo xam ne buñ la xasee maye moom daal baatu alxayru ji ngay déglu am na ci ñoo xamante ni duñ xaar sax nag ñu maye leen barke yonent bi am na ñoo xam ne duñ xaar sax ñu maye leen dañuy dem waaw loolu la ak waajuram ndax waajur mm. boo yoree sa doom fa ko war a yore teg ko fa ko war a teg daal di koy xamal lii mooy àdduna moo tax ñu ne doom bu jigéen na nga ko ñooxu gu wér doom bu jigéen na ko teg ci sewet doom bu jigéen na ko def sa nawle mu def la nawleem ndax li ci nawle mooy leen nga jël sa doom ju jigéen teg ci sewet lu mu bëgg suba ak ngoon nga ànd ceeg moom loo am bokk moom loo xam wax ko xamal ko nii la ak naa la du la masa jaaxal waa nag boo bàyyee sa doom ci lu ko neex ragal koo wax. dëgg la ma woo ko ne nii la ak naa la lu ko neex mu def. ah dégg naa dëgg de. waaw neexul. moo tax doom da nga koy jël rek yar ko ci sa bopp. Ah, yar ko ci na ngay doxe mhm. yar ko ci nangay ngay waxe mhm. am na nag ñoo xam ne dañ naan doom ja ndey ja déedéet léegi àdduna bi moo tourné. dëgg la ndax doom ja ndey ja. baat la bu xóota xóota xóota waaw dañ naan am na ci ñoo xam dañ naan doom ndey ja da caa foor buy nàmp da koy xool loolu la ñuy wax waaw fekkate yoo du ci ndey ji mm. ndax ndey ji moom dafa daw ba dee dëgg waaw def na kimti laay kàttanam dëgg la xanaa kay njabootug léegi moom mooy njabootug kinaara mooy dëgg dañuy jiitu nga topp ci moom waaye du teed yow nga waslu ci àq defanteeg ñoom soxla naa ak baat boobu xam nga li tax nga di njaboote rek ñooy njaboote kinaara moo tax léegi mënatoo xaar sa doom di ko tëral sa kër di ko tëggali ndënd ndax yaa jiitu ñu topp ci yow ñoom it fu ñu ko soxlaa rek ànd ak seen jëkkër dem seen yoon du ñu la tàggu ku doon tàggu tey ne yaay maa ngi dem bërëb sàngam wala maa ngi dem fii ñun la kaay fii ci sa kër sa néegam rek sa néega ba wante xaaratuñu loolu de. xaaratuñu kon yàlla na nu yàlla defal jàmm rek. bilaay maa kontaan. wante laabaan amoon na fi xorom bu baax a baax a baax a baax a baax wante nag gis nga ko rek jamono de bu wëlbati ko da ngay wëlbati ko rek ànd ak moom ah doy na waaw naan jamono changé waaye damaa yaakaar ni nit ñee changé ah doy na jamono moom changé wu nit ñee changé nit ñi nag ñooy changé nit ñi la rek waaye jamono moom na meloon mhm. rek la mel ba tey ah dëgg la waaw ndax weer wi changé wul jant euh, jant bi changé wul dëgg la doomu aadama yee changé dëgg la Adja dëgg la waaw loolu nga wax nag mooy dëgg waaw kenn ku nekk jël sa doom teg ko ci yoon. Mhm. fas yéenee def ci sa doom yi jigéen góor ak jigéen a ci yem éducation moom ci ñëpp la baax. dëgg la waaw ndax ñàkk kilifa mënta paase. Mhm. ma duñ la mayee sax nga dem ñibbi jil góor gi xam nga ne yow góor goo ñibbi jil kooku moom say mbook xalaatatuñ ci yow ay laabaan ak i tëdd. loolu de moom bari na fi moo tax ñu ne boo gisatee sa doom bëgg nit. Mhm. bu ko sas alal alal sa de. boo gisee yow te loolu nag lu bari nag ca ndey ya lay doon ak baaya ndax fee ngeen naan kii tëgg la walla kii fii géer la walla kii nangam la day métti lool gis nga xale ku mu bëgg nee mu ñëw nga ne ko luy say tànk mu ni nangam nga may ko kenn xamul yàlla rekk a yor waaye sa doom ne la kii laa bëgg nga taxaw carrément naan ko dugg na fii génn na fii ah bu toppee kooku nag du ci doom ji ci yow moomu lay doon. maanaam lool moom amul sax ca yàlla moom ndax. yàlla moom ci moom lay ci yow lay doon de wante du ci xale ba. sunu waaw loolu moom dëgg la. waaw ndaxte am na ci waajur yoo xamante ne ni moom. Mm. lu dal seen doom yi ñoom seen waajur yee leen ko teg. ndax dañuy gis diggante boo xamante ni nii dañoo bëggante war a ànd ñu ñu di leen ko ña duñ leen maye. loolu moom loolu tamit bëri na fi fi mu toll nii bëri na sunu jamono ji da cee bëri torop waaye tamit ci cadre ay ay ay ay tëgg yooyu yooyu moom amul ndax yàlla sunu borom moo bokk sàkk ñépp yonent bi benn la sallallahu alayhi wa waaw yàlla sunu borom kun fayakun benn la du ñaar du ñett kon ñëpp ñun ñëpp ay doomu aadama lañ waaw ñaañu yàlla boole seen wërsëg moom maye rek te xam na yàllaa leen boole. waaw loolu nag déggoo li ma la looloo andi lépp yow ku ñëw bëgg sa doom ji bàyyi leen alal ji alal soxul buur yàllaay maye wante nag yow nit ñëw ne dama bëgg sa doom. nga daan ne déedéet danga koy jox lii jox ko laa mu daw te sa doom bëgg ko ñu emente ah bu ëllëgee lu ca nekk nag yow ah, ndax xale yi emente kenn mënu ci ñaari <laughs> dërëm te danoo emente déggati naa dëgg loolu ah, moom dëgg la moom ah, dara du ko loolu moom. Ah. dara du ko dindi. Ah, waaw xanaa kay ñu ñaaxaat xale yi rek ñu gën a góor góorlu génération bu bees bi nga xamante nii ñëwaguñu. Ah. ak bi passé ndax am na ci ñoo xam ne amaguñ jëkkër moom. waaw loolu la nag ñu ñaax leen rek ñu góorgóorlu ah te dégg déggal seen yaay yeeg seen papa yi ak seen waajur yi ak seen mag yi ndax mag ndax mag du tuuti. waa kon soxna si man damaa kontaan gu wér. di sant nag di gërëm ndax ni ngeen ma fekkee tey sama kër gi damaa neex. ndax ñëw ngeen laal tosaan bu neex ci man ñëw ngeen fiddali loo xam ne ñu bari dañ koo fàtte woon dëgg la loo xam ne ñun dañ koo bëggoon ci sunu xol daan taxaw ci géew yi di def lu dara jarut ak ñoo taxaw ci géew naan laabaan ji de wute naag laabaan dañ ma woowe woon billaay wante yàlla nanu yàlla fajal amiin amiin maa kontaan ci yéen lu neex nag du doy wante dañu koy dog ba beneen yoon cey bis bu ñu jàkkaarloo tee bu ko roogee dina neex gërëm naa leen <laughs> di leen sant. bu yoon merci beaucoup jërë ngeen jëf. bu yoon jeexul waaxu du jeex. Ah, kon macha allah lay sant di la gërëm. wax dëgg yàlla ndax ñëw bi moom yombalal nga ñu ko dagg sa yitte yépp wax dëgg yàlla tubaar fa kaala macha allah yal na sa jàmm yàgg ci barke yonent bi. yàlla na nga dund ba xale yi di la yóbbu màkka ak ñëw ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal sama rakk ju baax ji ci kër gi yàlla na dund ba am fi yëfi boppam ci barke yonent bi waaw xanaa ñëpp kay ñëpp maas euh, ñaan gi moom boole naa ko ñëpp sunu caméraman bi boroom télé bi nag moom dañ koy bàyyi yàlla rek yàlla nañ ko dégg fu gën a kawe fii ci barke sëñ Saaliw Mbàkke barke sëñ Fàllu allahuma amin ndax lii rek mooy nit ndax ñun matuñu yéen a ñuy mottali dëgg la te lii am na loo xam ne tey dina ko ñu ko ñu ngi ñaan rek yàlla nañu yàlla lafal ca ba ñu dajawaat ci kàttanu yàlla